ah man combat yi man li ma jaaxal sax mooy lu tax mu yéex a am xam naa peut-être Fadam dina ci dina ci tontu après parce que ñoom ñaar ñëpp euh, boo xool même génération ñoom Balla ñoom ñëpp daje ne mais ñoom ñaar rek ñoo ñoo dajeegul defe naa defe naa ci génération boobu et muy combat boo xam ne peut-être euh, euh, kenn mënu ci kenn mënu ci pronostiquer <laughs> kenn mënu pronostiquer donc xam nañ ne Eumeu Sène mën na ak poids lourd mhm. Eumeu mën na ak poids lourd mais. Tapha dafa naqaree daal Tapha Tine moom Tapha Tine te loxo diis te naqari na daan te mën na te te te mën na xeex comme ni ko gars yi di waxee daal man maa ngi xaar bis ba. Eh, incha allah <laughs>